الرحمن ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق رباني البرق الاستعب مذن الأرباح المالت لكل متعرض من البحور والأواني ونور كلامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوام صراطك التام الأسخام اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الآذم إفادتك منك إليك إحادة نور المطالسام صلى الله عليه وعلى آه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 wa sahbi wa sallama tasliman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin salat al-fatih jël mooy le président de l'espoir ku koy jël mooy l'homme des grands projets de l'État monsieur le chef de l'État vous avez la parole jërëjëf jërëjëf jërëjëf bismillahi rahmani rahimi alhamdulillahi rabbil alamina wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu Serigne Aziz Sy Al Amine maa ngi yëkkati kàddu di kàddu nuyoo yu amul fu mu yem ak kàddu ziyaar ziyaara bu gën a tedd di ko teg ci sa loxo yu tedd yi ngir nga jottalil ma ko Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di xalif general de Tidiane ci bés bu màgg bi ñu ñëw fekk si leen ci Tiwaawoon muy bés bi nga xam ne seen maam sunu maam Seydi Hadji Malick moo ko andi ci Tiwaawoon ci atum 1902 boobu ba tey ñu koy feete fii ci senegal kon ñëw naa andi nuyoo réew mi yépp ak ziyaara réew mi yëpp di ko teg sa loxo ngir nga jottali ñu ko xalifa bi waaye ginnaaw jottali nuyoo yooyu dinaa la nuyu sama nuyu bopp ziyaara la sama ziyaara bopp bu jëm ci yow ngir di rafetlu sa taxawaay sëriñ abdu sa taxawaay ci diine ji sa taxawaay ci yoon wi sa taxawaay ci defar gi ngay defar mbokkoo diine ji ci réew mi rawatina ci diggante tarixa yi ak sa taxawaay si jubbanti jikkoo ndaw ñi delloo leen ci valeur yi nga xam ni mooy valeuru islam muy islaam bi nga xam ne moom la mag ñi nangu woon te moom lañu jàngale moom lañu ñu digle te bu ñu toppee valeur islaam yooyu foog naa ne duñu réer duñu am benn jafe-jafe lii moo tax ñu ngi ñaan yàlla mu bàyyi la fi nga yàgg fi lool te ànd ak wér nga continuer liggéey bi ngay liggéeyal jullit yi rawatina euh, mbokku taalibe Seydi Hadji Malick yëpp su ma la nuyoo dinaa nuyu sooy rakk ah, dinaa si ràññee sëriñ Boubacar Sy Mansour moom it nekk ku topp sa ginnaaw di la jàppale ci lu wér yor puso moom it di ñaw ma koy nuyu di ko ziar di ziara El Hadji si Sy ak sëriñ Babacar foog naa lañ ma présenté sëñ Sidi Ahmed Sy mu sëñ Babacar ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu ma ziare ñooñu rek mel na nu ziare naa njabootu suñu maam Seydi si Malick Sy yëpp radiyallaahu taala anhu nga jottali ñu nuyoo bi ak ziara bi ñëw naa ànd ak sama soxna ànd ak gouvernement bi yëpp ànd ak institusiyon yi nekk ci réew mi ñu ñëw ndokkale si leen ci bés bi nga xam ne ki ñu ko jagleel du kenn lu dul ngeen di mbindeef ndax gàmmu liñ ci feetu mooy anniversaire juddu sang bi sallallahu alayhi wa te it jàpp nañu ne Sidage Malick bi muy ñëw ci pays bi booba daara ji yaatuwul diine ji yaatuwul te it mu jàppoon ne bu defee anniversaire juddu sang bu tedd bi ñu ci jàng alxuraan di ci firi dund yonent bi di leeral xelu doomu aadama yi di fexe ñuy roy ci jikko yi nga xam ni mooy jikko sallallahu alayhi wa sallam yaakaar nañ ne kon gàmmu buñ koy xool daara joo xam ne ku ne war na fi roote ay xalaat ak ay xam-xam yoo xam ne daañu la jëriñ li moo waral nag Tiwaawan bi nga xam ne mooy pays bi war nañ ko jàppale taaral ko jox ko yit li nga xam ni moo war a màndargaal dëkku diine bu toll ni Tiwaawan di moo waraloon dañu waxtaanee man la am naa yéene jàppale la ci liggéey bi nga sumboon yow sa jëmm bopp nga tàmbali woon ab liggéey nga wax ma fi ngeen jaar yépp waaye ku ne xam na ni yenn liggéeyi état daal moo ko war a mën a mottali ci réewu àdduna bi yëpp nag wàllu diine faaw état taxaw ci jàppale waaye ngëm yi ngir ñu mën a topp seen jaamu yàlla looloo waral ma taxawal programme bii di defaraat këru diine yi ak di leen toppatoo ndax ay dëkk yoo xam ni bu nu xewlee lu ëpp ci réew mi daañu jog jublu foofu war nañ mën am ay infrastructure ak ay barab yoo xam ne daañu mën a teeru nit ñooñu ci anam yu gën a sell lii moo waral programme bi ñu sumboon ma ci sant yàlla nag bu baax dama wax alhamdulilahi rabbil alamina ndax ñaari at ci ginnaaw dama ñëw gàmmu nga dalal ñu sa kër ah, ma ne bëggoon naa tàmbali liggéey boo xam ne bu ci yàlla àndee dëwën su gàmmu jotee dinaa ko inauguré yàlla nag moo kii maye moo mën moo amin lépp yàlla defal ma sutura daaw ñu ñëw fi inauguré salle bi inauguré parti bi jiitu woon ci programme boobu ren nag yàlla mayaat nañu kattan ak mën-mën ba ñu mottali programme boobule nga xam ne tey palais des hôtes buñ koy wax ci tiwaawan ah lu mën a xew de yaakaar naa ne mën ngeen fi dalal gan gu nekk ci àdduna bi kon ñu ngi sant yàlla bu baax ci nim ñu mayee ñu mën a mottali sunu yéene li ciy des nag moom xam naa ni waxoon naa ko daaw xaymawaat nañu ko xoolaat nañu liggéey bi bu ñu yàlla bàyyee fii ba ci kanam tuuti daañu mën a mottali juma bu mag bi mu nekk loolu mooy yéene bi te incha allah daañu ko daañu ko doxal lii nag dama ko sumb itam ci dëkk yu bare bare muy dëkku diine ndax comme réew mi réewu diine la diine daf fi am solo torop kon war nañ jàppale diine ji waaye ñu xam rek nag lu nekk day am fu mu tàmbalee ndax ndar xëyul rek sotti kon lépp du mën a parendoo ci benn at waaye na ñëpp xam ne daal programme bi moom daañu ko topp daañu ko doxal ba bu ci yàlla àndee ah, ba fu mu ko yemalee buñ fa yeggee daañu xam ne dëgg-dëgg ah, jàppale nañu diine ji ci biir réew mi yëpp jàppale nañu bu boobaa tarixa yépp ngir waa senegal bañ di jéggaani wala di wuti feneen ndimbal ci luy taaral seen diine wala di ko defal kon maa ngi doon wax sànq ni Tiwaawoon daara la ndax gàmmu ci lañuy jànge lu bare ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën ji mbindeef waaye dafa mel nag ni sëriñ bi tey lañu ñu gën a soxla daara boobu ndax tey la ñu gën a soxla defaraat jikko yi tey lañu ñu gën a soxla roy ki nga xam ne mooy gën di mbindeef tey lañu ñu gën a soxla aar suñu lislaam muy lislaamu jàmm ak salaam lislaam bi nga xam ne maam yi moom lañu jëloon tasaare ko ci biir réew mi boobu léegi ñuy am ay enseignement yu mag yoo xam ne si la ñëpp jaar ñu tabax suñuy réew tabax suñuy doom tabax suñuy jikko loolu bàyyi nañ ko seeni loxo ndax àdduna bi tëra dina tey ku jóg yaa ngi tudd lislaam ku jóg yaa ngi wax ci turu yàlla ngay wax ah loolu nag dama jàpp ne ñi xam yàlla jox leen fànn boobu ñoo war a xamal ñi xamul ngir gone yi ñu bañ leen di këf ci loo xam ne méngoowul ak diine méngoowul ak aada méngoowul ak dara luy nuroog lu ñu jege kon toujours dañuy wax rekk ni Tiwaawoon ak kër këru diine yu bare am nañu yaakaar ci ngeen gindi xel yi di waxtaan ak nit ñi dëgg-dëgg si la parole de Dieu muy alxuraanul karim lan la yàlla wax lan la santaane lan la tere su ko defee nit ñi daañu mën a xam seen bopp ndax jàpp naa ne islaamu Sénégal doy nañu ni ko xalif général Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy jàngale doon na wax képp ku bëgg jël xelu xale yi muy xelu xale réew mi ngir dugal leen ci xeetub jëf joo xam ne dina indi fitna ci àdduna moom sëriñ bi nee na am nañu lu ko tontu ci jàngale mag ñi kon bu ñu desee ci jàngale mag ñi yaakaar naa ni ah suñuy doom du dem ci xeexi ci réew yoo xam ne seen yoon nekkul ci la fa xew ba ñuy dem di sanku walla di indi ay jafe-jafe kon nag xam naa ni jàngale yooyu mag ñi bàyyi fi woon yéen a ngi ko topp di ko doxal xalif yi fi jaar yépp ak kilifa yi fi nekk yëpp mën nañu wax ni puso bi réerul kon loolu laa bëggoon wax ci bés bi di la xamal ne Sénégal yëpp a ñëw ndokkale si la ndokkale si leen ci bés bu màgg bii e, mbiru liggéey dootuma ci wax ndax yaakaar naa ne yàlla def na li ñu doon mëbët yëpp teg nañu si bët sunu yéene la te yéene boobu daañu ko gën a yaatal daañu ko continuer fépp nag ci Sénégal fas yéene rek liggéeyal réew mi ci anam yu nekk waaye liggéey bitam nay nekk liggéey bu gaaw te set li nga xam ni noonu lañ ko doxalee fii ci Tivaouane ak ci gox yu bare ñu ngi leen di sàkku ñaan ñeel réew mi yàlla yokk fi xéewal yokk fi jàmm yokk fi sutura soxla nañu ngeen waxtaan ak waa réew mi tam ci jikko yi ndax lu kenn daawul gis ci réew mi mooy faral di am internet bi télévision yi rajo yi war nañu xoolaat liñ ciy jàllale ndax ñun ay nit ñu ñuul lañu dañu am suñu aada am suñu diine kon dañu war fonk suñu bopp lay xew ci réewu tubaab yi mënuñu rek lu fa xew ñu indi adapté ko war nañu fonkat suñu bopp nguur gi nag lim ci war a def dina ko def su laajee ñu xoolaat yoon yi maanaam loi yi ci wàllu diffusion yenn xeetu image diffusion yenn kàddu daañu xoolaat yoon bi ngir teg ci ay daan parce que nit soo xamatul sa valeur xamantoo sa jikkoo nekkatoo doomu adama moo tax damay ñaan ñi nga xam ni ñoom ñoo yor waxukaay yi muy rajo yi télévision yi journaux yi internet bi bu ñu fàtte mukk ne dañu nekk ci société boo xam ne majorité bi ay jullit lañu ñeneen ñi ay chrétien lañu am aussi seeni valeur kon nañuy bàyyi xel valeur yi bàyyi rek lu xew rek ñu ne ko tasar génne ko muy yàq ay jikko euh, loo xam ne Sénégal mosu fi am te duñu nangu nag loolu di wéy kon nag kilifa yi mën ci wax mooy ëppati solo sax parce que lépp lu jëm ci diine walla ci ay jikko loolu yaakaar naa ne yéen ñu ci gën a mën a sànni ay kàddu maa ngi sàkku ñaan itam ngir sama liggéey ngir ci réew mi di ko sàkkul jawrin yépp muy gouvernement bi yàlla yokk taxawaay yi yokk xéewal yi ci réew mi ngir suñu yéene ñu mën ko mattali ci jàmm kàddu yooyu rek sëñ bi laa amoon di la ko jottali di la santaat di la gërëmaat ndax xam naa sa yéene ci Tiwaawan sa yéene ci diine ji xam naa ne it Euh, mosuñu toog mukk mukk mukk ba nga wax ma tax problème mu bopp loolu war naa ko seede fii lu muy luy jëmale diine gi kanam luy jëmale euh, dëkk bi kanam parce que dëkk bi tam waa dëkk bi ñoo tax ngay wax loolu kon maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant say rak sëñ Mbay euh, ñu ngi koy gërëm moom it ma lay seedal ne ku may jàppale la ku may ñaanal la Euh, donc bu ma toogee fii war naa ko seede loolu te xam nga cofeel gi dox suñu diggante ak kóllëre gi naka noonu say rakk yi fi nekk yëpp ak njaboot gi maa ngi leen di sant di leen ziar allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam